pour wax la ne xaleel kenn du ko xel keroog li ñuy ñaanal yonent bi mag ñi sax ñaanal lu ko parce que seen xol dafa sell te dañuy jege borom bi seen xol dafa sell moo tax xaleel wattu ko ni ñuy def ñun jàpp xaleel di caw ak di ko saagaat jox ko pot mu yalwaan ci àll bi kooku xaram na mutlaq kenn du ko def kenn du ko def